li si yéenekaay yi ak Mouhamadou Biteye jàmm ñoo ngi ne tekk ñenn ñi tàmbalee dalal seen xel ci coronavirus bi juux ci réewum Sénégal observateur nañu xel mu dal day waraguñu ndekat suñu sukkandikoo rek ci waaye kër docteur yi liggéey rek ci doomu jàngoro ji di coronavirus bi boo moytuwul day li raam ci ñag wi la jëm ndax ñoom seen bopp de dañ ne nag ni doomu jàngoro ji di lawee nag ci réewum Sénégal day dalee na tiital journal bi nañu billaahi di ñoom ñoo yey tiin ndekat ci fukk fan dong day lu ëpp nag ci ñi amee rek doomu jàngoro ji dañ leen ko wàll professeur Moussa Seydi mi fej rek ñi amee doomu jàngoro ji ne fi toll nii daal bu ñu yeboo rek waajal sunu bopp nag ndekat yëf ci loxo vox nañu ci ayu bés bi rek ñaar fukk ak ñett dolleeku nañu ci limu nag ñu amee doomu jàngoro ji ci réewum Sénégal ba ñu toll ci téeméer ak ñeen fukk ak ñaar waaye nag ñaar fukk ak juróom-ñaar wér nañu ci professeur Moussa Seydi ne ci journal bi bu la waayu jàngoro ji dakkul day ci boobaa day musiba rek moom lay jur la ak juróom daal boo moytuwul rek dinañu sóobu confinement général maanaam nag tey nit ñi ci seen kër yi muy guddi di bëccëg ndax kaa communautaire yi maanaam ñi amee doomu jàngoro ji te xamuñu kan moo leen ko wàll day war naa tiital ñëpp vox populi nañu professeur Moussa Seydi day ca jam ñaajo ndekat nee na daal jëwriñ ji ñu dénk nag wàllu wér-gi-yaram jàppale na leen nag ci ay lal ca jam ñaajo ba juróom fukki doomi aadama day yu amee coronavirus bi a a ña fa amee rek i yitte waa fukk ak ñeent nekk ci traitement ba tàmbali nañoo feex Walfadjri yéen kaay nañu chloroquine bi docteur Raoul ne daal mën naa faj covid bi day professeur Moussa Seydi dellu nañu ci waxtaan wu mu seq ak waa RFI day professeur Moussa Seydi dane fi benn ayu bés day xam ndax rek chloroquine bi baax na wala baaxul waaye daal ñoom li leen waa institut Pasteur waxagum ci jamono ji bi ñu ko tàmbalee jëfandikoo ak léegi day mooy ne nag garab gi ci boppam gaaw na ci wàcce rek doole doomu legi xale bu amul rek juróom benn at ak jigéenu wéerul mbaa rek buy nampal chloroquine bi baaxul ci ñoom observateur nañu mbir day bu xewee moom muy lu baax mbaa muy musiba rek foo jaar nag gis ci ñoo xam ne daal dañu ciy ras déem waa ji moom Amadou Samba la tudd rek ñu koy Papi Samba ab médecin la doon bu boowu di def ay test ci ay doomi aadama naan day xool ba xam yoroon doomu jàngoro ji di covid 19 waaye yoon day teg na ko loxo moom doomu tëngéej gi journal bi nañu waaye nag li ci ñuul mooy ne rek ay xaritam ak ay dëkkandooram nee ñu daal naka jekk ñoom njortoon nañu daal ne waa ji wérul ki wér ci doomu doomu jangoro ji ba walat bopam wal fajri yéen kay ñu mom moy député Moustapha Guirassy journal bi ne ñu mu ko defee woon ba mu yoré rek doomu jangoro ji wal bopam noné la ko bi mu ba nopi nak gërëm ñëpp itam bu baaxa baax ñi di waa kër docteur yi Sud Quotidien ñu président Macky Sall mom yok na doole xeexam ak covid 19 bi ndekat gannaaw couvre-feu bi mu taxawal ci réew mi ci digënté rek juroom ñett waxtu ci guddé ba juroom waxtu ci fajar légui nak jébbal na wa pencum ndaw réew mi projet de loi bi jëm rek ci muy gouverneur ak ordonnance journal bi ñu ci luddul yag dara day pencum ndaw réew mi nak dinañ ko ko wotel ndax nag projet de loi bi mi ngi ci table Moustapha Niass maître Madické Niang ni ci Walfadjri yéen kaay fii day lu ñuy xaar amatu fi na ko député yi wote ci nu mu gën a gaawee journal bi nañu dalal bi njiit réew mi di dalal rek waa ku jëkk politique yi ca pale ba day ñu bari nag di ay jàngatkat ci wàllu politique ak société civile bi dañoo gis ne amul benn njëriñ deful lu dul rek exposé pale ba ci covid 19 bi Walfadjri yéen kaay nañu nañu ko ni defee woon ci atum bi ñu ko soxlaa ngir tabb ko jëwriñ ju njëkk bon nag su wuy siwul ci pale ba itam day moom la neex ndekat bir na ko ne daal jot na yóbbante gi li waa Chine yóbbante réewum Sénégal ngir rek jàppale leen ko ci ay jumtukaay yu ñu xeex ak coronavirus bi la Soleil yéen nañu ci gaaw gi day la ko ambassade bu Chine bi nekk ci Ndakaaru doon wan rek nguurug Sénégal journal bi nañu ñaar fukki junne masque chirurgicaux la ñaar fukki junne kit de ne waa Sénégal football kat yi stade kaay ne ñi ci farete Juventus ak entraîneur ba day ñoom nangu nañoo toog ñeenti weeru yàlla yu ñu dul fayee ko muy mars bi avril mai ak juin ngir rek jàppale seen club ci nag koppar yi muy dugal rek ci coronavirus bi journal bi nañu Zinedine moom jamono ji day ab ailier buy dugal di def ay passe day moom moo ko teree nelaw moom moo tax sax journal bi ne diggante Sadio Mané Alan ak kii di Aubameyang ana rek la Mayang ëpp leen expérience ba noppi rek ëpp leen lu muy joxe ci terrain bi may laaj rek naka la Zinedine Zidane war a def rek ba du juum ci fam